ndigatal ci ba tey ci seen scandale du jour ñu déglu ji Choco kàddu yi mu yëkkati. jubal jubbanti waaye wax rek mbele mbele rekk yorul am réew barki salaatul fatiha bu la ay wax taxee falu buñ la falee ba tegle ci boppu réew mi ña la fal dañu am ci yow yaakaar Sénégal yépp ngi jooy. mag ñaa ngi jooy xale yaa ngi jooy ñi ci université yaa ngi jooy Sénégal gën a metti léegi lijjanti fa bulletin de naissance sax yombatul passeport waxi nopp ñi ñu bloqué Sénégalais yëpp mais mais mais attends kenn nooyiwul te kenn ko wax Macky Sall fii ngeen nekkoon lu ne mu def ko ngeen koy xas Macky Sall gënoon ci réew mi yéen defagu leen fi dara. amul benn secteur. amul benn secteur ce que ce qu'on est amul benn secteur booy toog Sénégal gi nga laaj leen port bato yëpp a ngi taxaw kenn liggéeyul port bato yëpp a ngi taxaw kenn liggéeyul kenn kenn kenn liggéeyul amul benn secteur booy laal ba ñu ne la alhamdulilah ñul ka réew mi bu mu ñii bu ñu faloo ba léegi gis nañ suñu bopp si ñii bu amé ben secteur ngir yalla ak yonent bi nyimai ñi may bu fekke sa ben nit la waxal leen ma ci commentaire ban secteur la ma dem gestu ci waat parce que man gisuma domaine bo laaj il y a problème côté bo laal il y a problème ba kañ. tam ben way mu ne ma yalla baax na dina changer mané ko ka peut-être ñen ñi fekk dem nañ waay luñ ci ñaar mu tuule